jaral. aywaay <laughs> takk sa mën gi def lu ma sax. Mm. waaye policier yi normal yi bu doon di ko di nag <laughs> lii ko leer police bu ñu. policier yi mag yi. nar nañu ko nar nañu yóbbu. dama ne woon bu corona bi jeex dama def xew. mais sama rakk ji bu te dew ma du ma mm. am na sànq mm, ragal naa mais naa dem. sama rakk la. te jël na lépp teg ko sama loxo lu mu def man lay jiital. waaye xam nga ne police bu ñëwoon tey di ma yóbbu. laay may dem ànd ak police bi na xamul ndax sama ngor rek. mais ma dem xew ci corona ndax dañuy jàppaat. te dugg na ci salle bi ñëpp daw nga toog. police ñëwoon. ñaaw. police eh, bi woon ndamer sama laaj de kaso. maa dama ne woon

Sayaya ngi taxaw. Sayaya ngi taxaw.